asalaamaaleykum aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu kon nuñ ko yeewoo fii nga xam ne mooy Kano ci Nigéria ñëw léegi gis nga ko mooy Cheikh Mouhamed El Tihami mu ngi soog a yegsi ñu ngi jugee aéroport ñëw yegsi fii nga xam ne mooy Kano bi nga xam ne mooy asmatul fayda mooy capitalu fayda Mawlana Cheikh Ibrahim ndax maa ngi leen di fàttali ne leen buur bi fii la wàccee kii di ñëw mooy Cheikh Mouhamadul Arabi Ibrahima Niass moom tamit mu ngi soog a jógee aéroport du nuyu jarbaatam Tijani Cheikh Mouhamad Sirajidine Ibrahima Niass moo nekk noonu moom tamit ci wetam. Euh, ma nuyonteeg ñoom ba pare soog a kii mon ma ah, marhaban ahlan wa sahlan cousin ci kaw la ci suuf naka mu makk yi tey mbaa yaa ngi alhamdulilah kon ni ñu koy waxee rek ñu ngi nii ñoom soog a jógee aéroport yegg si ci biir hôtel bi euh, Cheikh chef de protocole seen sër yi ñoo toog nii Euh, wax naa leen na leen kanu mooy dëkk bi nga xam ne fii la Cheikh Ibrahima Niass njëkk a ñëw ci Nigéria baayu kii nga xam ne moo taxaw mooy Tidjani baayam moom la ñuy wax Maalam Sani Awal mi nga xam ne moo nekkoon secrétaire Mawlana Cheikh Ibrahim soo xoolee ci vidéo yi euh, yi nga xam ne Baay mu ngi dem di julli iid di ko gis mu ngi taxaw tey caméra noonu waaye ànd naag moom ci buur bu nekk waaye ànd naag moom ci président bu nekk kooku mooy baayam waaye ku yaayam Seyda Aïssatou Sarr mu bokk ci organisation bi kon euh, ci biir loolu gis nga sëriñ bi mooy dugg si nii Cheikh Mahi Ibrahima Niass mooy dugg si nii aéroport lañ jugee euh, seen kii baa ngi nii di ñëw bi tey Kossy moo nekk nii bi tey Kossy TV moo nekk noonu euh, ñi ngi ni Cheikh Abdou Malik Ibrahima Niass mooy wàcc ni moom ci moom ci boppam Cheikh Abdou Malik Ibrahima Niass moy wàcc nonu Cheikh mohammed El Mahi Ibrahima nias mo nek nonu mom tamit mom mi nga xamni moy deuxième khalifa Mawlana Cheikh al Islam El haji Ibrahima nias ñu ngi nii di yex si alaykum wa rahmatullah Cheikh alhamdulilah nias marhaban alhamdulilah mo nek nonu ñu ngi ni sayda Hawa Niass moom tamit mu ngi nii di doomu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass na ngeen def Niass alhamdulilah Niass marhaban salaamaaleykum Cheikh Malick marhaban kay waxaal alhamdulilah macha allah ñoo ngeen ci jàmm alhamdulilah macha allah ñu ngi nii euh, ñu ngi nii kon nu ma ko waxee tey ñu ngi fii ci biir Nigéria euh, doom Baye Niass yaa ngi nii toog yu jigéen yi ñoom ñëpp ñu ñëw. Euh, عندك مولاي الشيخ محمد الماحي ابراهيم انياس آه، جرباتم ديكو كومباني موي تيجاني آه، نيغي عندك كوسي تي في نيغي عندك الفايدا نيغي عندك آه، سين تي في نيغي عندك دزاس تي في نيوم نيب نيغي في نيو نيو نيو داو دي نيو نيو داو دي نيو سيمباي كاي المجد يا أفضل الورى ويا أجل محمود ظلم والهوى ñu ngi ci hôtel bi ki leen di dalal di Cheikh Mouhamed Esra Jedin yore organisation bi fii nekk ak ñoom ci biir Nigéria moo nekk ni waaye sëriñ bi mooy dugg si noonu wërsëg moo nekk ni Almadina Kossy euh, TV télé Medina Baye Niass bi kon nu ma ko waxee ñoom ñëpp ngi départ ñëw néegam néegu sëriñ bi moo nekk nii suite bi moom lañ ko defaral nii suite sëriñ bi moo nekk nii nekk euh, suite hôtel international lañ ko jox ndax fonk gi ñu fonk waa kër Mawlana Cheikh Ibrahim macha allah nda ndoy seen TV mu ngi noonu tamit alhamdulilah kon gis nga Shababul Fayda kon nuñ ko waxee chamali marhaba alhamdulilah kon ñu ngi nii am naa ko ci ci Nigéria ça va na nga def am nañ ko ci Nigéria kon mami surtout الشيخ احمد التيشاني الخليفه فتشام مغني أه، من كو شباب الفيضة بو نيجيريا نيغي ني غيس نغا لين ньо نيك ني ا أه، كون يالا ماينا مكو تي بارتو واو واو يالا ماينا مكو تي بارتو واو موتاخ أه، بوغوما طالبي دارا مانكلين بوغوما بوغوما دارا مانكلين بوغوما dara raw leen moo tax kon nu ma ko waxee woon rek fii ci Nigéria euh, incha allah dinaa leen defal lépp direct ngeen koy gis Babacar moo nekk nii kii mooy kii mooy Babacar bu Alfayda <laughs> Baye Diané bu 2STV. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah مرحبا كوكو دريكتر ابراهيم جاي المدينه الفايدة يلا يلا نانغو زيار بي أه، لما لاي واخ رك وا تاي ناك نيغي كانو أه، فيغا خامني موي كابيتال فايدة بي موي مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نياس مو نيك برب بو خامني danaa la nettali tuuti ci histoire ba fii Baye Niass di ñëw parce que Baye li ko tax a ñëw fii buuru kanu moo ko fi taxoon a ñëw ndax buuru kanu dafa ñaanoon ñett yi yàlla na ko may ma ma nekk buur te soo ma mayee ma nekk buur ñaan naa la ma aji màkka te su ma ajee màkka yàlla na ma yàlla wanele ki nga xam ne moom mooy sama wasila ci kaw àddina ba ko yàlla defee buur bi am na ñaar yooyu ba am ñetteel ba dem ca màkka fa muy taxawee ca kaaba gi di ñaan mu ne ko yàlla may nga ma lépp waaye gisaguma la sa sama wasila ba léegi ci la ko bàyyi na ko bis boo ko fi rombee rek xamal ne dootoo ko gis loolu moo waral fayda bi tàkk ci fii ci Nigéria bàyyi ba muy ñëw moom kenn moo ànd jour ba mu ñëwee di seet buur bi buur bi benn dagam daf koo gis na ko yow buur bi ngay seet mu ne ko waaw mu reyee ko waaye ba mu ko reyee kenn ci dag yi demoon ca Màkka dafa gis Cheikh Ibrahima Niass daw ñëw wax ko buur bi buur bi sànni kaalaam salde yeetam salde dàllalam waaye buur boobu dafa daw ñëw sukk ci woroon ron Cheikh Ibrahima Niass foofu la faydu bi commencé tàkk tey lu ma la mën a wax ñu ngi fii ci kanu àddina ñépp a ngi taxaw génn génne seeni poster Baay Ñas rek ngay dégg amul chrétien amul musulman amul tijaan amul xaadir amul layen amul dara ñépp dañoo toog ngir mbëggeelu Cheikh Ibrahima Niass parce que bés bi dañuy wax ne bés boo xam ne la soo toogee ñëw rek dugg ci biir stade bi wala nga taxaw ci mbedd mi sa aajo yëpp day faju te amul sikk sàkk ne yàlla moo ko wax yàlla moo wax ne defar na ay nit yoo xam ni ci kaw àddina nit ñi jaaree ci pour texe te Cheikh Ibrahima Niass moomu noonu la texeelee àddina noonu la texeelee lépp loo xam ne mbindeef la ci kaw suuf kon maa ngi lay wax ne la tey fii nga xam ne mooy kanu amoon nañ ci yàlla na ko yàlla yërëm suñ xalifa ba ku makka muy maalum isxaaq rabiyu jógee na fi daaw waaye mel na ne dara jógewu fi parce que doomam ki ngay wax Abdou Samad isxaaq rabiyu mu ngi fi yore organisation bi ak jamiya bi yëpp nuñ nekkee vraiment fu mu nekk nii sëriñ bi mooy soog a ñëw yeggaguñ ci xumb-xumb yi waaye dinaa la wax na la na ma ko doon reporté na ma ko doon waxee di ci ànd ak yow waaye dinaa ci ànd ak Babacar dinaa la wax nit ñi ruq-ruqaan yeeg koñ-koñ yeeg mbedd-mbedd yi ndax wax naa la na la taalibe laa boo xam ni su may wax ci baay damay xaalu su may wax ci baay du ma noyyi du ma déglu ndax Mawlaana Cheikh Ibrahim moo ma jaral loolu moo ma jaral di sonn ndax mooy sama ruux mooy sama bët mooy sama xol mooy sama lépp te fii ñu ñëw nii tey gis nga gàmm gii tey Nigéria rek ñoo ko doon def waaye gis nga Abidjan def nañ ko ren Cameroun def nañ ko ren Soudan ñu ngi ko war a def semaine bii passé nga xamni kon bàyyi mbiram mu ngi gëna tassaro ci international bi waye nak Sénégal gogu insha allah pare nañ man ak abdourahman doomu Mawlana Cheikh Ibrahim dinañ taxawal journée bu mel nii ci Sénégal ñu xam kan moy Mawlana Cheikh Ibrahim ndax fofu la jitto te war nañ ko xam bu baaxa baax ci lu muy liggéey ci l'islam kon dal directeur lu mu la mëna wax ah fi dal foo sànni mbaat mu tak waye man ci bir hôtel bi la nek ni di def direct tamit ci sama Facebook diko won talibé yi pour ñu mën ko gis waye suñu aggé ci xew-xew ba insha allah yàlla dina matal lépp ya rabbi jërëjëf directeur wa Facebook ngeen bal ma parce que ma ngone en direct al fayda bu nga xamni moy suñu radio ci Sénégal di wax ne ñu ngi fii ci hôtel bi nga xam ni dañu fee dalal nga xam ni caatu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass muy Seyda Mariam ñas moo toog ni kii mooy caatu baay bu jigéen bi mu ngi noonu kii toog ni mooy Seyda Oumamatu Niass doomu Mawlana Cheikh Ibrahim kii mooy Seyda Umu Salamata Niass doomu Mawlana Cheikh Ibrahim waaw kii mooy Seyda Habibatu دوم مولانا Cheikh ابراهيم واي سو نيوي ci لولو داني ñëw suñu mag كي موي سيدا حوا نياس دوم مولانا Mawlana ابراهيم مو moo اندك ليغي المولانا léegi محمد الماحي ابراهيم نياس كي Mahi موي كون تودي nag mooy موي مام استو maam ني گن كو Janqa تي سيدا نداي ايدا موي عائشه نياس دوم مولانا Aïchatu ابراهيم كون ماغي واخ ني في ني نيك تي اوتيل بي ñu nekk gis nga ko journaliste yaa ngi yu joge Sénégal kon numa len ko waxe ki moy Baye Diané mi nga xam ni ñëpp xam nañ ko euh, ci 2STV wax dëgg yàlla ci 2STV ñëpp xam ko taalibe moom Mawlana Cheikh Ibrahim la di ci sonn lool léegi léegi sax mu jël jëlu boppam def lépp pour tout pour nit ñi gis ko wax dëgg yàlla mënuñ ko wax kii nag seen TV la mooy ndooy mais sama cousin la sama cousin la taalibe la moom tamit wax dëgg yàlla ci kër gi ndax rakkam taalibe la waaye man sama cousin la ci sama wàll yaay mu nekk seen TV. wax dëgg yàlla di liggéey liggéey bu rafet ñëw ñoom ñëpp ànd ñëw kii di Babacar mi nga xam ne Cheikh Babacar mi nga xam ne Médina la dëkk ñëpp xam nañ ko ci Alfayda bi nga xam ni moo nekk ci Médina Baye wax dëgg yàlla ñu ngi nii di ñëw def reportage yàlla nag ren ñu dimbale danañ fexee créer benn drone boo xam ne dana jéem a naaw ci kaw jaww ji wala ñu ut hélicoptère boo xam ne dana naaw ci jaww ji ndax wedd gis bokk ci ndax damay wax ne nit ñi dañuy toog naan est-ce que lii c'est vrai waaye bëgg naa leen a won na leen c'est vrai parce que kanu fii dinaa wax ne 13 millions d'habitants moom moo fi dund ci région bi te 13 millions bi yëpp dëkk musulman la à 100 pour cent waaye mun naa laa wax ne Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass lim fi yore ci taalibe mat na onze millions kon dama lay wax ne la dëkk bi yëpp taalibe Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass lañ fii ci kanu parce que fi la yëf yi tàkkee fii la yëf yi ballee fii la yëf yi nekk lépp nak motax gam gàmm gi fii lañ koy défé ci bir lolu nak dina wax ne sëriñ baa ngi génn na muy Cheikh Abdoul malik génn na légui mom ak Cheikh Siraj ñi ngi ni génn ci hôtel bi hôtel bi lañ nek hôtel bi lañ nek fi lañ dalal serigne si wax deug yàlla inshallah danañ def waxtaan bo xamni waxtaan bi dana jëm ci lu bari ci loo xam ni ci ay taarix dinaa ko def ci diggante euh, euh, buuru Kanu nga xam ne mooy king of the Kanu bi nga xam ni moom la Cheikh Ibrahima Niass ñëw fekk si fii nga xam ni mooy ci Kanu waaye dina waxtaan ci lu bari ci Mawlana Cheikh Ibrahim ci relation internationale bi nga xam ni moom la def ci àddina bi waaye moom rawatina ci Nigeria ndax damay wax ne nit ñu bari dañuy yaakaar ne Cheikh Ibrahima Niass Nigéria rek la bëree taalibe mais Soudan dem nañ ba nga xam ne seen université bi dañoo forcé pour ñuy jàng li nga xam ni mooy xasida Mawlana Cheikh Ibrahim yi mooy yi bàyyi téeréem yi mu bind yooyu dañ koy exiger pour nit ñi di ko jàng da ngay gis ku ñëw na la ñaanal ma ngir yàlla ngir sama doom mokkal téere bàyyi ndax dafay mel ni ci ñoom kon ni bàyyi waxee woon ne yàlla na sama karaama lépp lu may ñaan si yàlla ñaanuma benn karaama lu dul alquranul karim loolu nag ñoom tamit dañ koo jëlee mokkal alquran ba pare waaye dañuy bëgg tamit di mokkal li nga xam ni mooy xasida Mawlana Cheikh Ibrahim yi moo tax Cheikh Ibrahima ñas soo koy laajte ci àddina bi doo réer parce que soo ne kan mooy baay ñëpp xam nañ ne ko dañ naan la Ibrahima ñas Kaolack yi ndax soo génnee ci àddina bi soo ne Baay Niass rek dañ naan lan Kaolack ñoom Sénégal pour ñoom Sénégal mooy Kaolack loolu la àddina bi jàpp mm, fii nag tàngoor bi moo ñu jàpp ni ndax ñu ngi toll ci 47 degré ci lañ toll nii euh, tàngoor bi jàpp ñu lool tamit waaye sant yàlla léegi la sëriñ si ñëw ñu ngi sant maa ngi nuyu waa Facebook kon nuñ koy waxee ñëpp di ñu seetaan ñu ngi leen di ziyaare euh, di wax ne ñu ngi ànd ak yéen saa su ne dara du leen ump ci sama téléphone kon nu ma ko defee woon daaw dinaa dugg xuus ci biir stade bi ci biir doomu aadama yi dinaa xuus partout fu ma mënti nekk pour taalibe yi gis ko pour bég pour kontaan ndax loolu lañ leen amal ndax ñun ñëpp ay taalibe lañ te bés bu yem ni ku nekk danga koy bokk ak ki nga xam ni moom nga bokk ak xaal bi moom nga bokk ak dund gi te loolu mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax mënuma leen a bàyyi ci loolu mënuma def tout lu dul jëlal leen ko defal leen ko alhamdulilah kon nag ñu jëlaale image yi nank nànk euh, ba may présenté dafa amoon ku demoon kii nag mooy wërsëg moo nekk almadina yàgg naa ñëw soo gisee vidéo boobu ma doon defee reportage yuuxu yuuxu yu métti yooyu yooyu moom moo ko doon filmé wax dëgg yàlla yàgg nañoo ànd ak moom di ñëw fii moom ak Baye mii kii nag mi nga xam ne mooy bitey mi nga xam ni tay mën na laa wax na la mooy Kossy TV mooy télé bi nga xam ne macha allah njëkk ci télé Mawlana Cheikh Ibrahim yi nga xam ne tey partout ci àddina bi ñu ngi koy seetaan ci liggéeyam bu rafet ren ñëw na kon dara duñu romb incha allah guddi dinaa leen invité ñoom ñëpp. ñu toog ñu def benn débat waxtaan ci Mawlana Cheikh Ibrahim ñu sottante xalaat ñun ñi nga xam ne te dinaa ko def ak ñoom guddi incha allah ñu ngi nii Cheikh Abdourahman Ibrahima Niass mooy soog a génn nii ci chambre hôtel am di nuyoon teg ay ay ay ay sëram kii mooy Cheikh Abdourahman président organisation. bu Merina Baye nga xamne khalifa bi lépp lo xamne ci tabax ci organiser mom la ko jox a Cheikh Abdou Malik moy nuyo non moy nuyu Seyda Oumou Salamata mooy nuyoo noonu waaw ñu non noonu ma sha allah ñom ñep ñu ngi ni tok euh alhamdullilah rabbil alamin su ko defé nak dina mëna tok def li nga xamne moy sama commentaire euh monsieur Euh, euh, Cheikh Cheikh Cheikh Kaay ma laaj la tuuti Cheikh. Cheikh Kaay toogal nii ma laaj la. dafay rek si toogal tuuti ma laaj la. Euh, kii mooy président protocole bu Mérina Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Cheikh Tidiane Niang surtout Amadou Boucar Niang waaye tamit kuy yaayam suñ ko waxee dana jara tiitaroo ndax jigéen boo xam ne la moo njëkk a toog ci kanamu baayam tari alxuraan. waaye moo toog ci kanamu baayam bind téere kooku mooy kan mooy Seyda Ruqayatu binti Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne baayam moo ko seedeel xam-xam baayam moo ko seedeel sell waaye baayam moo ko yëkkati ca kaw a kaw kooku nag doomam nekk nii moom tamit mu nekk intellectuel boo xam ni fii la jàng jàng alquran ba mokkal ko waaye jàng tamit ci français ba am bagam ba dem université yàlla may ko mu génn suñ waxee oustaz Boucar Niang mi nga xam ne borom xam-xam la muy magam doy na sëkk suñ waxee oustaz Aboubacar muy Boucar Niang mi nga xam ne tey ci àdduna bi partout ak téere bu rëy boobu nga xam ni liggéey na ko moom Boucar Niang danañ laajte kookaa la doomu Seyda Roqeeta bàyyi la suñ waxee tamit kan mooy président Ansaarudine à Kaolack ñu ne Cissé Niang moo ko jur waaye damay wax ne doomam yëpp wal alhamdulilah ay kàngam lañ yoo xam ni jàng jàngale xamale waaye ci biir loolu yëpp ñu ngi xidma seen maam Cheikh tey fii nga ñëw muy kanu nga xam ni mooy asmatul fayda bu Mawlaana Cheikh Ibrahim bi ba nga dugg see tey lan ngay yëg ci wàll gi nga xam ne tey sa maam liggéey na ko ci biir Nigéria. waaw yi ñu ngi nekk bu amul sax ci. Eh,

waaye baay bi mu ñëwee daf leen indil ay spécialité yoo xam ne ci xam-xam ci maarifa maîtriser naxwu muy grammaire mu maîtriser fiqh muy jurisprudence islamique mu mu maîtriser charia muy loi islamique mu maîtriser tasawuf muy soufisme yooyu ci leen leen indil loo xam ne mosuñ ko gis te buñ fi ñëwee dañuy njëkk a fàttaliku mooy ku mel ni maanaam Jibrima nga xam ne dugg na xalwa del daanaka saako dugub la amee di ko teg bu jàngee jawaat ko mal teg ba mu jeex gannaaw loolu mu gis ne mu doon laaj ne kawnu bi euh, siècle bu nekk dafa am ko xam ne moom moom jamono ji muy laaj jamono bi dafa bëgg yàlla dénk ko mu nekk saaxibul fayda mooy yàlla may ko aussi mu nekk kooku nga xam ne jamono boobu ci siècle bi ci loxoom lay nekk ñu won ko ne ko joxe nañ ko kiñ ko jox mu téen gis koo xam ne moo ko wër ak kawnu bi kawnu bi ne ci suufam kooku wër ko kooku Cheikh Ahmad Tidiane ne ci wetam bi wër leen mu laajte kooku am la ñu ne ko Cheikh Ibrahima Niass la tudd mu nga dëkk Kaolack mu jógee fa dem Kaolack ba mu demee Kaolack nañ nit ñi sax na nañ ba muy ñëw daf daan def fu mu toog ci deram bi rek fu mu bëgg dem fa lay toog dem bi mu ñëwee bi moo ko ko aaye ne ko sama taalibe bi gën a ndaw mun naa toog ci der dem waaye bëggeewu ma ko noonu man bu may jaari Cheikh Ahmad Tidiane damay egg di wàcc di sonn bu may jaari ci yonent bi damay egg di wàcc di sonn taalibe ay cadre ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñoo fi nekkoon ñoom Malam Tidiane Ousmane ñoom boo demee ay Lagos ñoom euh, euh, Cheikh Boulala nga xam ne bi Seydi Ali Cissé ñëwee fi radiyallahu taala anhu moom dafa wax ne ba céréales yi lakk nga xam ne malaaka yi ak yenn jinne yi rek ko dégg sax daf ko dégg dégg na ñeent fukki lakk ak benn yoo xam ne adduna bi waxatuñ daanaka mais bu mu mu wéet ak Seydi Ali Seydi wax moom ba pare mu ne ko yow de su fekkee am nga sëriñ ko koy suma sëriñ boo amul sëriñ nag yaay suma sëriñ mu ne bi pa di wax ak moom ak li muy am am xam-xam mu ne séddaal yi wax ak nag moom fukki minute ak juróom yoo xam ne xamut ci li muy wax dafa mel ni du arab wax ndax xam-xam bu éeg moo tax baay li ñu foog ne euh, par hasard la kii Nigéria déedéet daf fi ñëw indil leen xam-xam boo xam ne domaine boo laal rek daf leen ci raw raw boo xam ne loolu tax ñu mujj ànd ak moom moo tax su ma ñëwee fii ah li ñuy kontaan loo rek mooy liggéey Cheikh Ibrahima boobu nga xam ne jéggi na frontières yi جينا جيجي كم نمكو وخي علوت البحارة الآخرات إنني علوت القرآن قرى والمدنة بل الجبال أرومود ذا الباري نصرة دينه وبرز الجيل الجديد مثالا قدو كيف دي دوخ جيس مونتاني جيس جيس جيجي مغي جيس دكي اندوي أغيو مغي غا لم دون وخنون لم دون دولا وإلو ليب الإسلام أك benn euh, euh, euh, exemple jox benn exemple jeune génération yi nga xam ne futur ñi ngi ñëw ñi nga xam ne ñun ñii ñëpp ci leen bopp moo tax sëriñ bi ñu ngi lay gërëm yow li ñuy wan mooy ne affaire bi nekk taalibe rek la parce que ni nga jëlee sa sa téléphone di ñu defal direct dafay sedd ci suñu xol man damay wax ne bu ma yegsee gisuma la sax damay gis ne gàmm gi am na loo xam nga ci man te lii yëpp li ñuy won rek mooy ne mbir mi bàyyi rek la moom rek la ñu war a xidma te moom moo wax ne ku ko xidma dana la fay moom moo ko wax da nga koom dana mingoo say mbir na moo wax indi di xadama ni naalu muraadahum saatan wa maalu dégg nga am na feneen sax mu wax fa man acha shahada wa man mati yafudu daka kulli zaman toujours ñu wax ko nee na may googu nga xam ne moom la ko yàlla may soo ku génn àddina sax mu ne

taxawal yonent bi ak Cheikh Tidiane yóbbu tarixa bi tallal ko fu mu mës a àgg ci àddina loolu mooy liggéeyam te ñu sant yàlla bu baax daal di gërëm bu baax a baax sëñ bi. waa léegi Cheikh suñu biir wax loolu ren damaa gis ni li nga xam ne mooy gàmm gi Nigéria rek moo ko doon def. waaye ren dama gis ne Abidjan Cameroun Soudan war koo def ci semaine bii di ñëw. lan moo waral loolu. waaw dañuy wax ne sëñ bi moom mbiram amul tànk gannaaw tànk kanam rek la am. ndax euh, moom sëriñ maam daf ñu mos a nettali mu ne dafa wax bàyyi ne ko dama gëm ne bomb bi nga dóor Nigéria soo ko dóoroon Sénégal euh, dina dina demee neneen mu ne bàyyi ne ko maamul mu ne ko tool ci gannaaw kër lay nekk waaye soo soo soo soo bayee nga bojj nga ji soo paree nga bojj nga naaf tar defar lépp def ko ci ay saako nga indi nag ci sa réew nit ñi bokk si doo lekk moo tax xamoon nañ ne Nigéria dafay tàmbali waaye nañ xaar Ghana nañ xaar Soudan nañ xaar Tchad nañ xaar euh, Mauritanie def na euh, ay yoon daaw ganal na paa bi nañ xaar Mauritanie nañ xaar Mali nañ xaar Niger sëriñ bi mbiram Euh, national la waaye international la tamit moo tax àddina yëpp danañ mujj di célébrer bésam bi ni nga xam ne noonu lay célébrer bésam sangam bi mu bi sallallahu alayhi wa ni nga xam ne noonu lay màggalee Cheikh Ahmadou Tidiane muy sëriñam lépp lu mu leen defal yàlla dina ko ko fay incha allah. waaw ma gis ci biir loolu yow en tant que ki nga xam ne chef de protocole nga ci na Baye ma gis ne euh, li nga xam ne moo nekkoon kon organisation bi di am ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim. da ngeen koo yéex a def yéen waa kër Mawlana Cheikh Ibrahim parce que dañoo gis ni mbiram baay bi moom du fay day continuer di dem. ndax àddina bi soo demee kon ni nga ko waxee ay Soudan ak yooyu da ngay gis ni ñoo xam ni. ñu ngi liggéeyal Cheikh Ibrahim ci ay millions yu millions nit waaye du ñu gis njabootu Cheikh Ibrahim bi waaye ma gis ni jamono ji ñu toll pare ngeen jël yëf yi commencé ko organiser du ko teg ci yoon lu waral loolu. waaw loolu ñu ngi ciy kontaan li ci njëkk mooy yéen doomu yi Mawlana Cheikh Ibrahim yi nga xam ne. da ngeen a wàcc ci suuf ñëw ànd ak ñi nga xam ne ay doom lañ ay sët lañ ak ay taalibe pour ànd ak ci liggéey boobu exemple bu rëy la. parce que tey boo seetloo ren gàmmu tey bi ñaseen boo xoolee Cheikh Abdourahmane mu doon amee réception bi ak organisation bi ren organisation bi li ci ëpp wàññil na la ko nga téye ko. lu mel ni ñun ñu nga xam ne ñoo ameen protocole bi ren yow yaa nekk suñu kilifa jiite ñu ku mel ni Cheikh Siraj wàcc na ci organisation bi te loolu yëpp. da ngeen a gis ne euh, euh, Serigne Mamadou dama ko mosoon laaj ne ko bàyyi li ma jaaxal daal ci ci ci ay mbiram mooy organisation bi mu ne koo laaj bàyyi bàyyi na ko koo xam ne bu ayee kenn dootu ayee bu moomee kenn dootu moomee dafay yéex a moomee danañ mosal ñëpp bañ ayee ba pare jox ki nga xam ne bu ayee kenn dootu ayee muy loolu la doon xaar organisation bi mais yéen ñëw bi ngeen ñëw nii téye organisation bi ñun ñuy xale topp seen gannaaw ñi seen doom ak seen jarbaat loolu moo wane ne fi mu ne mayetu leen dara fu ne on a plus droit à l'erreur amatuñ droit def ay erreur ndax yeneen suñu kilifa te yi ñu ngi seen gannaaw te topp nañ leen moo tax même organisation bi nga xam ne moo am ni ci Nigéria lu ñu war a waxtaanee la ut ay nit ñoo xam ne ca biir Kaolack ak Sénégal dañuy ñëw fi ànd ak ñoom ci réunion yi waxtaan ak ñoom nga xam ne organisation bi dana gën a oyof parce que ren am nañ problème yu bëri même ci tur yi nga xam ne euh, moo nekk suñu passeport yi bokkut ak tur yi nga xam mo nek nekk ci biir yi loolu lay anglais di wax euh, language barriers mooy euh, barrière linguistique euh, ni ñuy prononcer bokkut loolu tax bu leen ko joxé par audio légui bu bindé cheikh ni ñu bindee cheikh en anglais S la ak H E I ak K mais ni ñu bindee cheikh en français C la H E I K lolou barrière linguistique la bo xam ñun mën nañ ko dépasser waaye nak dañ leen di jël yeen jité leen ngeen jël ñun ñuy xalé di seen i ak seen doom ñu and ak ñoom bu ko defee barrière linguistique bobu mën nañ ko dagg ndax Baye mom ku ne ne euh mbirum euh kuréel yu bokkeewut di ak yu bëriwut yi jaxaso ak yoy moy moy force moy li nga xamne mom la ko yàlla may. ما شاء الله بلا ما تج سن شيخ تي وقتان بو نيه بما سيخ ak yow noo gisee Shababul nga xam taxawal naa ci biir Nigéria. ñu nekk nii ñoom ci boppam kon nu ko taxawalee partout ci àdduna. nan nga gisee liggéey boobu ñu ñëw ak accueillir bu accueillir waaw xam nga Shabab ba muy tàmbali sax nit ñi dañu foogoo ne rek ay rêve la nii yoo xam ne day lu ay xalaat la yoo xam ne mooy li tubaab di wax loo xam ne dañ koy wax nii rek waaye jëmut fenn daal waaye alhamdulilah ni dañoo progressé daal man damay bokk ñoom di liggéey xam nga chaque année danaa ñëw ci yow ne la comme ñoo amee protocole bi ñu bëgg nga boolee ñoom ñoom ci pour ñu mën a déggoo waaye Europe dafay wax ne lu yàgg rek dëgg la bu dowutoon loo xam ne

ñuy jàng sécurité di ko xam te toujours at mu ñu ngi gën a amélioré moo tax euh, bu demee ba moom tam boo mën a jàll ci international bi rek mooy ne au niveau national taxaw na te nit ñëpp apprécier nañ ko te def na liggéey bu mucc ci ayib donc liggéey nag soo ko defaree togg ko ba mu ñor da nga koy mën a exporté tey fi mu ne nii boo ñëwee dugg ci restaurant nigérian yi tey soo laajtee ceeb boo na jollof rice ceebu jën lañ lay jox. Mhm. parce que ceebu jën dafa dem ba nga xam ne fi mu ne normal normal boo xam ne bàyyi dafa ànd ak moom exporté ko. waaye daf ko daf ko exposé génne ko parce que bi nee ba óolu xam ni ñëpp mën nañ koo lekk dañ ko génne liggéey nag boo koy def au niveau national boo demee ba nga xam ne mucc na ci ayib da koy génne ci international parce que parce que jàll na taxaw na rusatoo koo wane fen moo tax Shabab ñu ngi gërëm di gërëm sëriñ bu baax baax ci loolu waaw di gërëm magam yëpp nga xam ne ñu ci organisation liggéey baay bi di wax ne noonu la ca nañ jàppalante taalibe top sen seen gannaaw incha allah bàyyi moom ca kanam rek incha allah. waaw alhamdulilah loolu dama la ci dolli rek na la tey ñu ngi feetee suñu indépendance muy Sénégal. de di ñaan yàlla Sénégal googu ñu bàyyi ci gannaaw ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim bi ñëw nii. di leen ñaanal yàlla ñoom ñëpp nekk ci jàmm yàlla yokk leen ñu ngi bokk ak ñoom kii bi. ma wax la ci biir loolu ci Shababul Fayda ñu ngi woon Passy nekk seen formation mais démb euh, préfet bi daf leen a gis. na leen dama bëggoon ngeen bokk ci défilé suba ENAPA ndax ñoom démb dañ doon def flambeau ñoom a Capral Fall ak commandant Ndiaye ñu ngi foofu kon nu ma ko waxee euh, ñun alhamdulillah yàlla def na nekk nañ association euh, boo xam ni wax dëgg yàlla bu organisé wu lañ euh, dem nañ ba nga xam ne gouvernement bi daf ñoo reconnaître waaye tamit li nga xam ne mooy armée nationale dañuy liggéey ak ñoom dañuy soxla wax dëgg yàlla lépp nag defuñ ko rek ci xidma Cheikh Ibrahim waaye dañuy jëriñ tamit suñu réew loolu ñu ngi sant yàlla ba nga xamee ne yàlla may nañu ci Nigéria ñu am fi Shababul Fayda ci Espagne ñu am ko fa am ko ci place yu bëri yu ute kon loolu dañ ciy sant yàlla kon nag nu ma leen ko waxee ka doon waxtaan ci boppam mooy cheikh mi nga xam ni wax naa la ko ne la yaayam kenn du ko weerante mooy Seyda Roqeetu Ñas mi nga xam ni borom xam bi nga xam ni baayam Euh, Mawdana Cheikh Ibrahim moo ko seedeel xam-xamam waaye gërëm ko ci kanamam ci biir loolu nag euh, maa ngi gërëm maalam Tidjani euh, Barhamiya mi nga xam ne en direct lépp loo xam ne dañ koy liggéey rek ci ci ci ci ci wàll li nga xam ne mooy information ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim maalam Tidjani mu ngi koy tasaare ñëpp ñëpp di ko seetaan di ko gis ñu ngi koy ñaanal yàlla. yàlla guddal fanam ci barke Maulana Cheikh Ibrahim defal ko lépp loo xam ni euh, luy luy yëkkati nit ci kanam la. Euh, ci biir loolu rek Kumba Aaw maa ngi lay gërëm bu baax macha allah Kumba Aaw ma ñu ngi lay gërëm ñu ngi gis ay commentaire di wax ne Cheikh euh, Ousmane Touré bu HLM maa ngi lay nuyu bu baax Cheikh Ousmane Touré ñu ngi leen di gërëm tamit ci seen seetaan. ak euh, li ngeen taxawu yëpp ci en direct bi di ko seetaan doom Cheikh Ibrahima ñoo nekk nii ba tey ci biir euh, yëf yi euh, di wax rek na xaadimu Cheikh Mahi Cissé Ndiaye maa ngi lay nuyu Khadija Rasoul Ndong maa ngi lay nuyu ah say sey saw Sey Saw maa ngi koy nuyu Ousmane Cissé Niass ñu ngi lay nuyu Ibrahima Diallo Euh, Kaolack Médina Baye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Babacar bi tey euh, fàttewuñ ko <clears throat> Niass Bachi ñu lay nuyu macha allah Seydi Niass maa ngi lay nuyu bu baax gis naa sa commentaire Maxu ñaa ñu ngi lay nuyu Aminata Ndiaye Sarr Wadd ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Baye Baye Salimata Wadd Niass suñu mag boobu nekk. ci ñaari tali yore garage bu mag boobu muy bàyyi Cheikh ma ñas ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di la delloo ziar bu baax a baax dégg nga Tafa Yali maa ngi lay nuyu bu baax a baax imam Seyda doomu Seyda Aïssatou saar moom laa doon wax Tidiane ñoom ñaar ñoo bokk yaay ndax Tidiane moo nekk ne moo nekk euh, na lay tamit ci bu organisation bi euh, maa ngi nuyu Aminata Niang Sarr Wade waaw ñu ngi lay nuyu. di nuyu Serigne Aliou Niass mu ngi koy nuyu di nuyu euh, Abibou Fall ñu ngi lay nuyu bu baax euh, soldaaru MC Niass dégg nga Ibrahima Niass ñu ngi lay nuyu euh, Malam Tidiane gis nañ ko encore kon nuñ ko waxee rek dégg nga Cheikh Mahi Niass doomu Cheikh Mouhamad El Makki Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Moustapha Dramé fàttewuñ la Ousmane Niang fàttewuñ la Tafaay euh, kii kon euh, Kash Sow Kacha Sow fàttewuñ la Aline Diouf euh, président Shababul Fayda Tidjani Ousmane dégg nga Seyde Barham Fofana dégg nga Ibrahima Sidibé fàttewuñ la Ibrahima Sidibé ngeen baal ma rek euh, Mami Gueye kamara maa ngi lay nuyu bu baax euh, euh, Cheikh Niang dégg nga Samba Diouf Turki Samba Diouf Turki taalibe Baay yi nekk Turki foofu ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Turki yëpp Samba Diouf Alliance dégg nga El Hadj Ibrahima Niang fàttewuñ la dégg nga Baay Baye Madjimba Baye Madjimba Sall dégg nga Seyda Tayiba Niass dégg nga El Hadj Seck maa ngi lay nuyu Cheikh Niang ah sàmb ah, Samb madame maa ngi lay nuyu muy Ndeye Samb madam ñas gis nañ ah, la ci biir kii bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Cheikh ah, Badara Thiam Cheikh Badara Thiam bu Baram Thiam Casamance ah. Thiam kooku kan la Baye Ngañ Thiam Baye Ngañ Thiam mun naa la wax sa xarit a ngi nii Umu Salaama ci Ñas Ngañ caam surtout Baye Ngañ caam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sëriñ àll Thiam maa ngi lay nuyu mooy Cissé Thiam Serigne Aliou Thiam maa ngi lay nuyu sama xarit bi sama soppe bi yow moom saa su ma la gisee rek sëriñ Aliou Thiam il faut que ma taxaw def pause. wan sama mbëggeel ak sama cofeel ci yow wax dëgg yàlla loolu yëpp nag dara lalu ko lu dut euh, lu dut Mawlana Cheikh Ibrahim ak bëgg gi nga bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim ak xidma gi ngay xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax Cissé Thiam mu Bram Thiam Casamance su ma la gisee damay stopé taxaw gërëm la sant la ñaanal la yàlla bésu Mawlana Cheikh Ibrahim bi dama bëgg laata may ñibbisi di jógee Nigéria yàlla naa la fekk ci ay milliards yi milliards ci mboolem lu ñu fiy ñaan rek yàlla naa la fekk yow ci ay milliards yi milliards yow ak ki nga xam ne mooy Cheikh baay Tayib ñas yàlla yàlla jox leen ko yàlla yàlla suturaal leen yàlla guddal seen fan ci barkeel seen maam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass sëriñ Aliou maa ngi lay ziyaare bu baax ci maa ngi lay ziyaare maa ngi lay ziyaare maa ngi wax ne Aliou Niass euh, gis nañ ko Euh, Aliou Niass euh, Seydi Tayib Niass ah, Tayib mu Cheikh Serigne bay ñaas la yaakaar naa euh, Seydi Tayib Niass mu Cheikh Serigne Mbaye Niass maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ñooñu sama kër lañ Jiba Dia Dia Jibi Dia maa ngi lay nuyu El Hadj Seck ca Brésil euh, euh, El Hadj Seck moo muy El Hadj mu Baye Mbaye MC nekk fële ci Brésil nga xam ne ñoom ñoo jiite ahbabul fayda Baye Mbaye MC Niass maa ngi leen di nuyu bu baax di leen di ziyaara di leen di ñaanal yàlla euh, sëriñ Aliou Thiam gis naa amin yaa rabbi bi yàlla daf koy nangu daf koy nangu maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax kër bi tey macha allah maa ngi gis tamit madame Niass Ndeye Samb mu ngi naan Amine Niass. ما شاء الله سوبل رك سرين عليم شام موتاخ فما توك اك فما منتنك ميم صاح سوما نيكون سي سما بير باخ يوم القيامه تد سي سوسي بس بو رومبي صاح دينا جار سي ستور بي لولو موم نانكو خام دا خدمه جيغا خدمه الشيخ ابراهيم سي كرم جي سي ليبام مو جاري كو سي يو من اوما كودول باي موتاخ كو ديف سي باي رك سما خول داي سيد سي يو damay damay gëm li may wax ndax bàyyi laa bëgg nee naa mooy sama ruux mooy sama bët mooy sama gémmiñ mooy sama lépp su ma neexoon tey sol sama garaam bu sol sama mbaxane bi toog sama biir néeg wala toog fële mais loolu amul solo lu am solo mooy fësal liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim lu am solo dañ ñoo jur ci kaw àddina juruñ pour ñuy rëy rëylu juruñ pour ñu toog ci teraanga juruñ ñu rek pour ñu toog di lekk ka naan déedéet bàyyi daf ñoo jur pour ñu tasaare l'islam ci kaw àddina bàyyi daf ñoo jur pour ñu tasaare li nga xam ne mooy liggéeyam ci kaw àddina lim liggéey ci lislaam moo tax taalibe rek moo am solo euh, sol yére rëy rëylu taalibe yi topp la amul solo li nga doon doon nga ko ba pare doomu Mawlaana Cheikh Ibrahima sant yàlla la yàlla may na ma mbooloo googu waaye yëguma ko sama bopp soxlawu ma nekk sëriñ taalibe laa soxla nekk parce que li may def di su sonn yëpp ci man lay delluwaat ndax bàyyi may jox njëriñ gi ma koy gis kon sant yàlla moo tax nag sëriñ maa ngi lay gërëm bu baax maa ngi lay gërëm bu baax sëriñ Thiam euh, sëriñ Aliou Thiam maa ngi lay gërëm maa ngi gis euh, Diallo euh, Cheikhou Adama ñu ngi nuyu bu baax a baax dégg nga Aminata Njang Sarr Wadd ñu ngi lay ñu lay nuyu bu baax a baax bàyyi. Baye euh, Baye Madiam Baye Madiam Baye Madiam Sall loolu lañ def Baye Madiam ma Madiam sàll nga baal ma ci liir bu fekkee lii réewu ko noonu lool laa gis euh, moom laa gis nii euh, gis naa Diallo Seexu Adama taqabbalallahu jaahu Baye ma amin ya rabbi jërëjëf jërëjëf Euh, jërëjën jëf euh, yaakaar naa ni sëriñ bi rek laa doon wane arrivé ñëw na su fekkee ne mun naa jël as tuut ci Cheikh Abdourahmane Niass su fekkee may na ma izna ma jël ko tuuti euh, waxtaan ak moom président mami may ma tuuti rek ma toog ak Abdourahmane jël en direct yaa ngi dégg may ma tuuti rek mhm. toogal na ne Euh, mooy waxtaan ak Seyda Aïchatou Sarr la ñuy waxtaan ak ni euh, euh, allah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi toog ak Seyda Aïchatou Sarr Seyda Aïchatou Niass muy Ndeye moo toog nii waaye kii mooy suñu président ñun ñëpp mooy président organisation de Maulana Cheikh Ibrahima Niass muy Cheikh Abdourahmane Ibrahima ñas mi nga xam ne suñu mag la di liggéey ci liggéey bu rafet kon nu ma koy waxee saa su nekk maanaam lekk lépp loo xam ne Maulana Cheikh Ibrahim bàyyi na ko fi ci lu ñu war a defar muy ci tabax yi muy ci jumaa mi kenn du ko weerante ndax xam nañ ne def na ko te wedd gis bokk ca wax dëgg yàlla doy na ci loolu ci biir Taïba bi nag kon nu ko Cheikh Niang waxee léegi liggéeyam bi num gisee ne bëri na ci moom muy wekkiwaat def ma ci wetam jox ma liggéey boobu pour ma liggéey ko ci gàmmu Taïba gi waaye mun naa wax ne gàmmu Taïba ren gi kenn du weerante ne liggéey bi rafet na wala rafetul waaye Cheikh Abdourahmane dañ lay laaj fii nga xam ni mooy sa dëkku baay bi yow mi nga xam ni dégg nga Hausa mun nga ko jàllalawaale sax nigérien yi seetaan comprendre nan nga gisee sa dëkk baay bi nga xam ni fii asmatul fayda la ndax capitalu faydu la ndax bàyyi fii kanu ñëw na ko nee na ba mu ñëw kanu ahlu kanu ñëpp di rëj rëjloo utali ko moom Cheikh Ibrahima Niass dem na sax bay wax ne moom bàyyi ak kan mooy Cheikh Ibrahima Niass ci boppam loolu nag nga sànni ñu ci ay kàddu. waaw alhamdulilah sant yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa leen ziare ci seen bési. baay bi seen ba si sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne tey réew mi tey fii ñu nekk nii ci kanu mooy dëkk bi ëpp nit ci Nigéria sànq ñu ngi ci waxtaan ak gars fii kanu moo mu ci quarante millions d'habitants loolu boo boolee Sénégal ak Mauritanie ak Gambie yëpp kanu bii nga xam ne moom la Baye wax ne mooy capitalu fayda bi moo ëpp nit ci Nigéria topp ci sokotu kon ñu ngi ci dëkk bu barke dëkk boo xam ne fi la Cheikh Ibrahim taale Nigéria ñu ñëw fii ànd ak suñuy mag suñuy rakk ñëw yokku man dama naan ñëwuñ fi ngir dara mais dañ fi ñëw ngir xool nit ñi bëgg biñ bëgg Cheikh Ibrahim rëjro rëjro bi ñuy def ci Cheikh Ibrahim soo ci jàngee soo delloo la nga doon def nga yokk ko ndax da gis ku la gën a sonn Cheikh Ibrahim ñëw du fi am kër du fi am fu mu ne ci basang lay lal ci mbedd mi di jënd lekk di lekk jóge fu sori sol yi nga gis na Yérémi Tilibi faalewu ko bis bi jot mu ñëw rek yuuxu Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim sikkar tudd yàlla rek ñibbi at te ay kilomètres lu mat ay presque mille et quelques kilomètres mu dugg ko ci oto ñëw mbir mi tas rek mu delluwaat loolu daf ñuy yokk beneen sawarte yokk ñu ñu gën a xam ne ñun ñi ñu ngi def waaye nekkee am na ñu ñu gën a nekk eh, taalibe am na ñu ñu gën a bëgg ñu jéem a fexe roy leen ci seen bëgg boobu noonu loolu bokk na ci li nga xam ne mooy liy tax ak gis li yàlla may Mawlana Cheikh Ibrahim nga gën a yokk lu gën a xam li yàlla jox kam li ñu yàlla may ñu sant ci yàlla bi si sant yàlla kese la euh, ñu ngi fii nag ci kan ci mag fi nga xam ne fi lañ dal njaboot Cheikh Ibrahim gaa ngi nii toog maa ngi leen di ziare ñoom ñëpp mag di Cheikh Mahi ci dëkk ne mii nga xam ne mooy caat bi Euh, maa ngi koy ziare ci bés bi di ziare ñëpp di ziare waa Medina yi ñëw yëpp di ñaan yàlla ni ñëwee ci jàmm nekk ci jàmm yàlla delloo ñu ci jàmm di la gërëm ci sa taxawaay ci Taïba bi ni nga ko waxee liggéey bi dafa bëri te dafa yaatu te dafa des lu bëri dañoo war a yokkaat suñ itte yu bëri war naa am ci pays bi yu bëri incha allah jàpp naa ne man ak yow ak suñ gënee yaatal mbir yi toog waxtaan ak doom yi ak sët yi war nañ mën a taxawal loo xam ne lépp lu pays bi manque ñu am ko matériel yi bagage tout loolu incha allah bu ñebee ñëwee Medina danañ ci waxtaan yaa ngi wax gàmmu Taïba waaye seentul na gàmmu Medina bii di ñëwit yu bëri danañ ko xaaj nga diriger ko jiite ko ndax dafa dafa diis te buñ buggee def yëpp il faut ñu wàññi il faut ñu xaaj il faut ñu yaatal jox eh, nouvelle génération bi surtout sa sa côté bi nga xam ne moom lañ la dénk ci ansaaru diin wàllu ndaw ñi loolu ñu ngi ñaan ndaw yëpp nañ ñëw liggéey ak yow collaborer ak yow suñ ko defee rek yu bëri li ñuy joytu ci pay bi ne dañ ko dañoo war a def lii dañoo war a def na suñ ñëwee ànd ak yow am nañ yaqin ne léppay normal incha allah kon nag ñu ngi oo bépp ndaw boo xam ne mu ngi ci fayda bi ñu ñëw nekk ci sa euh, commission boobu nga xam ne lépp luy wàllu jeunesse yow lañ ko dénk ci Ansaroudine ci Sénégal yëpp loolu nag ñu ngi oo mbokk yëpp ñu ñëw liggéey ak yow ñun danañ liggéey ak yow eh, li ñu amee it bugg nañ incha allah xaaj ko ci digg bi ndax eh, gàmmum surtout gàmmit na day métti su ko defee loolu nga mën koo teggil te incha allah ñaan nañ yàlla dimbale ba liñ bëgg ci pay bi yàlla defal ñu ko ci barke yonent bi tamu jaar ci suñuy loxo jaar ci njabooti Mawlana Cheikh bi ñu ne njabooti Cheikh Ibrahim nag ñëpp ci lañ bokk waaye nag xaas dafa am ñi nga xam ne ñoom Cheikh Ibrahim nekk seeni waajur jural leen boppam ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen gërëm di leen sant. alhamdulilah sëñ bi Malam Tidiane yi euh, mu ngi lay seetaan euh, fële ca dakaar muy Malam Tidiane yi. Mhm. mu ngi lay nuyu naa la nuyu naa la euh, man Cheikh Abdourahmane mhm. mu ngi kii waaye bëgg nañ ci biir. waxtaan boobu ci biir waxtaan boobu. Mhm. bëggoon nañ rek yow mi nga xam ni kon ni ñu waxee Baye international la. dégg nga Hausa te mosoo ñëw nigeria. jàngee woo ko fii yaa ngi ko jàngee sa kër mag ba sa kër baay bu tedd ba muy Cheikh Mouhamed El mi nga xam ne moo la yar. nga nekk ak moom sànnin ñu tuuti rek ci ay kàddu Hausa ci li nga wax ni tuuti. alhamdulilah muna nan ci muna nan a Kano mu zo cikin maulidin Cheikh Ibrahim Niass de muna nan a cikin Najeriya muna gay Cheikh muna gaya muku muna nan muna roƙon ku ku yi mun addu'a saboda mun sho shehu muna cikin mun shiga cikin majirin shehu ibrahim ya sanan alhamdulillah muna muku godiya muna muku marhaba muna nan cikin kano hasima faida wanda shehu ibrahim ya ce kano shine hasimin faida to tun mun shiga hasimin faida muna faɗi alhamdulillah muna gaishe kowa 마지리시오 두카 건데 수나 치킨 두니야 alhamdulilah maa ngi seeku. alhamdulilah kon nu ngeen ko déggee moom laay waxaat toujours Baye mooy international parce que làkk bu nekk da nga koy dégg ci Medina Baye ay américain tari nañ fa alquran ñoo xam ne tey tari fa bay jiite ci biir Amérique nekk fa ay imam am na américain boo xam ni ñu koy wax Kafaani imam Hassan yu indi ko fa. dem na ba nga xamne arab fofu la ko jange fofu la mokale alquran fofu la jange tere ñoo bokkon di tarbiyu ci jumaaji mom ak cheikh abdourahman ñoo bokkon di tarbiyu ci jumaaji mu cheikh kafani al imam koku nga xamne tay tey dem na ba tere fiqh yu bari tay dem na ba nek ki nga xamni international ci conférence ci adina bi fu nek lañ koy gis muy cheikh kafani te ba mi ñëw amon na lu mat fanweeri at ak juróom-ñett ba muy jàng si tey mu ngi nii toog ci àddina bi ñëpp di ko tiitaroo fa mu dëkk foofu ci Atlanta kon kooku macha allah damay wax rek na loolu bàyyi moo liggéey liggéey bu mel noonu euh, Baye moo def lu mel noonu kon nag tey suñ demee ba toog fii tey dañuy sant Mawlana Cheikh Ibrahim